li jëkk ci liggéey bi mu daan liggéey yonente bi mooy taxawal sunna su yonente bi ci njëlbeen ba ca mujj ga njëlbeen ngeeg mujj lépp taxawal sunna bi ginnaaw ba farata yi jàllee ci xeeti yàlla yëpp na nga taxawal ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak di tudd yonente bi di tudd ay martabam ay manaqibam ci di ko tagg ak di julli ci moom sallallahu alayhi wasallam sëñ mës a génn cadre tawhid bu set wecc ak liggéey yonente bi sallallahu alayhi wasallam mës ko génn comme ni mu waxee dallani allahu ala muhammadi wa xaadani muhammadu ni samadi ñaar yooyu diggante yàlla yonente bi yàlla yonente bi yàlla yonente bi diiniya tawxiidu ilahi nnaasi bi sunnatil maahi munal unnaasi wax nañ sama diine mooy tawxiid ak liggéey yonente bi sans suuf am na fu mu waxee ne kasbiya tawxiidun wa madhun linnabi alayhi taslima gafuur lil muslim sama pàgguteef lépp mooy taw ak wéetal ak wéetal yàlla ak tag yonente mu seddale ko ñaari xaaj at mi mu seddale ko ñaari xaaj benn xaaj bi julli ci yonente bi des tagg yonente bi salaatu sitta bi matihi sitta taatihi batta matisay al itisaau mooy jaamu yàlla ci sunna si yonente bi sama mooy roy noonu la dundee moom yonent euh, sëriñ bi naka noonu murit yim daan yarit ci loolu yi la leen daan yar yàlla def barke ci yaram boobu mbooloo mu bare bare bare jariñu ci moom ba ña daan génn ña jëkk a génn mu jëkk leen a yeew dañoo dem ñoom itam doon ay rootukaay yu ñuy roote ñuy tarbiya di defare ñoom itam ci kenn ku ne nag ca kem na nga tànk ci géejug sëriñ bi rek kii ma ngay jàngale alquran am ci cër bu rëy kii ma ngay jàngale xam bu rëy kii ma ngay tarbiyee nit ñi ci ay jikko am ci cër bu rëy kenn ku ci ne na tànq ci moom te yooyu yëpp ni moom la sëriñ bi boole woon di leen ci yar lañ seetlu woon mooy kenn mosu fa bàyyi ko dellu ca fam jóge woon te du gis nañ ci ay doxinam ak i melokaanam ak toroxloom ak farloom ak sax gu muy sax ci lu koy amal njariñ loo xam ne duñu amati sikki sàkka ci ni kii lii mu nekk moo gën lañ nekk ko fa masa bàyyi ko rek foo dem yaa leen di gën a rafet aw doxin gën leen a toraxlu nit ñi lañ daan xëccoo mooy ay daraja kenn ku ne jàpp ne yaa gën sa morom sëriñ bi la muy jëkk def ci nit ki mooy bu demee ci nit ña day defar boppam ba dañuy wëlbatiku di defaru ci moom boppam lay defar waaye du jóg ngir defar nit daana wax ne nit ki day yar boppam ngir mën a ànd ak nit ñi waaye du jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd moom loolu mooy yoonu sëriñ da ngay yar sa bopp ba mën a ànd ak ñun waaye du caagin da ngay jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak melokaan yooyu nag buñ ko gisee ci nit nit ñu baax ñëpp jamono bu ne dañuy xëccu jëm ci lu baax loolu moo waral mbooloo mi di toftaloo di walwali def genn saawo rek jëm si ci moom ñi ay borom xam-xam lañ ñi ay sëriñ lañ ñi ay jàngalekat lañ wet gune mbooloo dafa bàyyi ko ci ñi nga xam nag ñoo jiite woon adduna ak ñi jiite woon diine doon ay boroomi cër kilifa yooyu nga xam nag ñooy doon borom cër yi muy sëriñ si ak borom xam-xam yi ak jàngalekat yi biñ fàqee jëm si ci sëriñ bi kon nit yi kese kese yi daan topp ci ginnaaw ñooñu moom taxuñ dee si wax loolu moo fàqaale ñëpp ñu ñëw def ay mbooloo ku ñëw ba dem bala ngaa àgg sa kër sax sa xel nekk ci dëpp daanaka doo doyal ngir liñ gisoon ci ak taxawam gum taxaw ci buntu bi yalla ak sanni gim dan sanni di duusu duusi hikma yo xam eh, jotaay bu fam am lu gatt gàtt rek nga jere fa njariñ du reuy wax nañu eh, dafa am ku ñew taxaw di deglu sanni bi muy wax loolu ko lol mu waxee ba noppi mu jox sëriñ mbay jaxate sàll bi mu waroon fas mi mu waroon ko joxal ma ko ba jox naa sama sàll bii ngir lii muy wax ci yàlla waaye sëriñ bi ne ko ne ko na ñëw ma jox ko sàll wu gën ci moom wii bu ñëwee sëriñ bi tomb ñetti tomb ne ko li mata a def ak li matul a def ak li ëpp a def ñetti tomb yi mooy li mata benn bi li mata def tomb ñaareel bi mooy li a def tomb ñetteel bi mooy li ëpp def li mat a def mooy jaamu yàlla ngir moo lay may àjjana di la musal ci safara li matu def mooy fo ngir du la may dara du la musal ci dara li ëpp a def te bu ko sax xel xalaat bu nga ko waxee dafa dindiwaale tom ba sànni ko te bu ko sax xel xalaat nag mooy ak mooy yàlla kon duusi xikma yooyu ba tey la daan duusu fu mu toll ak liñ xam ci moom ci jikko yu rafet ak tab tab goo xam ne suñu borom moo ko ci ndax la mu ko ci dimbale mooy dafa xëcc àdduna jox dajale dajalee àdduna jox ko ak yu rëy yu kawe ak jëflante yu rafet loolu tax aw turam daj tasaaroo réew mi kapp nit ñëpp di banante ko ak xetam mu mujj doon waxtaani guddi yi ci ëtt yi doon waxtaanu ñi war ca kaw raxle doon béréb bo uh, doon gëstukaayu gouvernement yi tàmbali ci gëstu buñ dajaloo ca seen i diwaan mbaa assemblée ba tey seen i waxtaan mooy mbirum sëñ bi di lijjanti ba xam fu mu jëm ak lu ko tax a jóg waaye moom radiallahu anhu mësta dañ ca nam meloon di wéet amul kenn kum wéttali kooku dul yàlla amul benn àndaale bu mu jàpp bu dul ci yàlla yëngutuwut mbaa muy dal dara ci yàlla ak lu neex yàlla ak ngërëmul yàlla ci biir loolu benn boroom xam-xam du ko mën a bañ kenn ku maandu du ko mën a bañ kenn ku maandu maa nga am xam-xam doo ko mën a critiquer ndax gisuñ ci moom dara lu ñu war a mën a critiquer moo tax ñépp ñaar képp lañu woon wala ñett kii day soobu si ànd ak moom kii ñëw jébbalu si kii di xaymeem bu jébbalu si wutit xaymeem li mu nekk di ko rafetlu noonu la doxe ba daanaka buur yi këri buur yi ñëpp ña ca bokk ñoo mujj ñëw jébbalu si ci moom lu ëpp ci buuri Kajoor ak Bawal lu ëpp ña ña bokkoon ca nguur ga niti nguur ga Kajoor ak Bawol dañoo ñëw jëblu si sëñ bi loolu tax siiw gi gën a dolliku mbooloo mi gën di yokk yàlla it dogalal ko giir gu ne ña ca tànneef ñooy ñëw di jëblu si sëñ bi giir gu ne tànneef yi ñooy jëkk ñëw ci sëñ kilifa ya ak doomi kilifa yi loolu moom sunu borom dafa woo jagleel ci njëlbeen nga ak ci mujj ay taalibeem dëkk bu ne ak métier mu ne ak giir gu ne kilifa yi lay doon ñaar ñe leen topp dootu leen topp te kenn mësta manqué daraja topp ko te du yàlla yëkkati la ci sa biir nawle ba nga xam ko ba doo ko mu mel ne dafa sose ay mbiram da koo fondee ay kilifa mel ne loolu la sëñ bi jubloo junj ci benn lenn ci xasida di waqanteeg sunu borom ni ko nafaatani fanfa biyal iyaala yaa man xawal amira wal aqyala jariñ nga ma kon na jariñ sama njaboot yow mi yirif buur bi ak i kàngamam